Sall ngay ganu Thiès 24 ñu di la nuyu di la bàyyi nga nuroog. Euh, salaamaaleykum di nuyu mbokk euh, yi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo bokk euh, dëkk bi di Thiès bokk Sénégal yi tamit di nuyu surtout ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo partagé vingt 24 point com maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm. Pape Amadou Sall yow ci parti socialiste nga bokk demoon nga sax ba jiite ndaw yi ci région bi. %e effectivement man maa yoroon euh, ndawi parti socialiste nekk le secrétaire général de l'union régionale des jeunes socialistes de Thiès nekkit membre du bureau national secrétaire national adjoint yoroon itamit président de la commission jeunesse du parti socialiste du Sénégal yàlla def itamit ci renouvellement yi ñu génn ñu ñu on est atteint par la limite d'âge ñu daal di dem ci mag ñi fii may waxe ak yow Tembe man maay le secteur administratif de l'union régionale bi nga xam ni Ousmane Tanor Dieng moo ko jiite union régionale bu Thiès donc euh, euh, ci parti bi moom ak Thiès euh, ay li yéwén bu ma sañoon dama naan moo raw ci parti parce que nag parti yëpp ngi fi waaye PS moom gënal moom laa tànn waaye bu ñu waxantee dëgg rek ñun ñëpp acteur la ñu bokk dëkk bi xam na ni parti bi sooxe na fi bu baax a baax Euh, li ko waral itamit moo di ni euh, parce que dañuy wax ni parti animation la ay instance ak mobilisation te ñett yi ma la limal yëpp fi ma fii may waxee ak yow tembe dafa absent ci parti socialiste bu Thiès donc kon mën nañ jàpp ni parti bi doxul waaye nag la force du PS mooy am seeni militant ñu ngi fi inamovible tey jii boo jiitaloon bant sax ñu topp ci bant bi waaye nag li am moo di ne fii ñuy waxe tembe parti bi doxul à Thiès. mais nga yaakaar ne mooy mooy mooy saafara ñu jubbanti parce que waaw parce que li tax mooy li li li li koy saafara weesuwul ñett yi ma wax c'est-à-dire instances yi structures yi régulières yi exister animation am mobilisation am te loolu li koy indi mooy leadership da ngay am un bon leadership muy jël ay initiative def impulse impulser ak euh, une dynamique euh, au parti. non ça fait défaut et la, la direction du parti xam na ko la direction du parti xam na nit Thiès am na problème parce que tey fii ñuy waxee waxuñu ni euh, parce que ku ci ne am na fief ni Mbour ne fief Ousmane Tanor Dieng Fatick nekk fief Macky Sall jàpp nañ ni Thiès euh, jusqu'à ba fii ñuy wax fiefu Idriss Seck la donc wax santuñu PS mu gagné Idriss sekk ci fiefam. waaye nag njëkk ci néeg bi sa geen mujj ci gannaaw dara jaru ko te loolu dal PS parce que nag on a été au pouvoir tey jii même bu dee Idriss Seck moo nekk Thiès bu ñu ko gañewul it kenn waruñu topp ci gën a jiitu ci ginnaawam ñoo ci war a topp parce que on a été au pouvoir gérer le pouvoir nekk le pouvoir local ba benn instant donc dara mënul justifier tey bu ñuy lim les quatre premiers partis à Thiès PS du ci bokk ça c'est inadmissible alors que les militants sont là parce que tey fii may wax ak yow élection 2000 ak léegi bi PS daanoog léegi élection bi nga xamante ni sunu résultat bi gën a médiocre bi ñu demee seul aux élections c'était plus de 5000 voix mais 5000 voix ku ko am ci dëkk compté nga fa mais nag depuis ça se détériore et ça se dégringole et j'ai j'ai l'impression que ni boobu ça ça ça continue te ñun ñi nga xamante ni on est dans ce parti là par principalement man quelqu'un comme moi qui est dans ce parti depuis mais j'ai passé toute mon existence, mon enfance, mon adolescence, et aujourd'hui je suis adulte dans ce même parti, mais kooku que nous me s'étend, nous continuer euh, comme ça, dégringolade Bob. Et pourtant, le leadership no de, euh, En tout cas, les règles, les règles internes au pays sont des règles absolument démocratiques. Mais ça ne sert à rien de donner, un, comme nous le dit, un outil ko mauvais ouvrier. tey jii lu luñ ci mën a wax it bu ñu nee c'est c'est c'est les règles la lettre circulaire était très claire mais les gens ont manœuvré def ay combine def ay euh, forcing ak ay manœuvres ba jàll alors que ni la majorité n'était pas avec euh, avec elle donc euh, loolu moo indi bi ñu génnee ci renouvellement yi ba fii ñuy waxee tey le leader bi nga xamante ni jàpp na ni renouvellement ko fi teg en tout cas moi Dieu merci bokkuma ci ñi ko fi teg parce que moment bi ñu ko fiy teg j'étais absent du pays hors du territoire national en mission. oui euh, moi, moi, le camarade Ousseynou Keïta c'est lui qui est responsable actuellement du parti à Thiès mais jàpp naa ni moom nañu ko fale c'était de façon irrégulière parce que 87 teg léegi fekke na renouvellement bu fi am fekke naa ko bu ñuy renouveler parti CA même bu fekkee consensus dafa am mooy daje. commission administrative mooy daje valider loolu fii may wax ak commune bi amul liste CA commission administrative mm-hmm. renouvelé nañ ça fait plus d'un an le bureau n'existe pas et ça le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng le sait a pas deux semaines ci ci télé lay wax il a pas deux semaines j'ai été chez lui dans son salon on a évoqué le, le xam na ni le parti a des problèmes à Thiès et je te dis que ni effectivement euh, loolu nga xamante ni moom moo am c'est-à-dire ñu ci doxalin parti ci renouvellement yi manœuvrer def ay combine def ay kii ba toog mais maa leen di jiite wóorul yaa ñu jiite gën a wóor et aujourd'hui dab na leen parce que plus d'un an après même le bureau ne peut se bureau de l'union présidé par Ousseynou Keïta ne, ne se réunit pas Ousseynou j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un ami à mon père Mamboula Massal c'est un oncle c'est un c'est un père pour moi j'ai beaucoup de respect pour lui mais ci lii nga xamante ni moom la ñuy séq muy politique bi doxalinam doyuma leadership am doyuma te tey parti bi il devrait il il est en train de de de de rendre au parti un grand de faire au parti un grand tort et ça c'est c'est c'est dommage parce que ni mu ñëwee ci parti bi bi muy ñëw en 2007 fi la ñu fekk ni mu ñëwee condition yi mu dikkee fi la ñu fekk donc tey bu servirul ce parti la jële ko à un point A yóbbu ko à un point B ou waru ko quand même euh, euh, yoo regresser vers le néant et c'est c'est, c'est dommage. Euh, situation ko a jural mais li ñu ko mën a jural mooy continuer on est à la quatrième place dem cinquième ou sixième place jusqu'à ne plus exister loolu la ko mën a jural te Thiès c'est une ville importante du Sénégal surtout dans sur le par rapport à l'échiquier politique aux enjeux politiques et la direction du parti c'est mais c'est la direction du parti qui est interpellée. c'est la direction du parti à commencer par le secrétaire général Ousmane Tanor ñoo war xam ni le le parti est malade à Thiès malade de ses leaders ñu jël la euh, les responsa ñu situer les responsabilités jël les mesures qu'il faut sinon effectivement ñu jàpp ñu parce que en réalité ils ont peur d'affronter le problème et ça je le dis haut et fort ils ah oui ils veulent nous laisser la patate chaude pour que ñun ñu régler ko entre nous Aujourd'hui, euh, j'ai eu dire dernièrement qu'effectivement, d'ailleurs, le secteur général est résolu de ne plus convoquer l'union communale parce que tout simplement, ça a eu convoqué l'union, ne connaît gérer coordination. Mais ça, c'est gravissime. Et un parti, un grand parti comme le PS, dans une ville comme Thiès, une grande ville comme Thiès, presque la deuxième ville du Sénégal, mais c'est inadmissible que le parti n'ait que cette situation euh, de détresse et la direction du parti, Euh, bëgguñu filer la patate parce que en réalité ñoom dañu souvent dañu ragal Thiès du ñu bëgg a dugg ci ay problème u Thiès c'est ça la vérité aussi. Euh, parti socialiste yi ci coalition la bokk. Mm-hmm. ñu naan Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. Euh, doxin Benno Bokk Yaakaar nag yow nan ko jàngate. ni ko ñëpp doxale jàngate en réalité le Benno mën nañu ça n'existe même pas parce que une plateforme politique euh, c'est une organisation mais organisation du rek de nom. dafay am structure bi dafay dund dafay dañ koy suuxat muy dund muy fonctionner comme nit ñu ngi koy entretenir mais c'est dommage en tout cas moi j'ai jamais été convié à réunion de Benno Bokk yaakaar et ni au niveau local et au niveau national c'est la même chose que les gens décrivent il y pas de cadre de concertation et quand euh, bu cadre de concertation amul war nañu nangu la lati may nit ñu am latitude quand fa nga xamante ne fa lañ jàpp ne fa lañ mën a waxee ñu waxee foofu Mais en réalité, le Benno n'existe que de nom. C'est le Benno des leaders, on peut dire. Mais le Benno à la base, ou bien le Benno entre les responsables, ko une copie locale yi passée. C'était tout sauf du Benno, c'était plus proche du Tassaro que du Benno. Donc, euh, dox ba je dara dont le président Macky Sall, ben moment, il a tenu quand même à, il, a, il s'était engagé à rectifier le tir en dotant d'un siège équipé, Benno, Mais jusque-là, le contenu n'y est pas, parce que l'organisation euh, am euh, de concertation bi amul à part les leaders euh, qui semble-t-il sont en phase euh, en tout cas la base ne l'est pas la base est en déphasage avec le les le, le, le, les leaders. est-ce que kon yaakaar nga ni instrument politique a mais ça même mm-hmm. il faut relativiser. parce que tout simplement en tout cas jusqu'à l'heure où je parle le PS n'a pas encore donné sa position. par rapport a le benn euh, à soutenir une candidature quelconque de Macky Sall. Mm. et même. moi vous savez nous nous avons ma en tout cas en tant qu'acteur politique. Mm. j'imagine mal une élection au Sénégal fût-elle locale ou quoi que ce soit sans une candidature du PS. Moi je fais partie des socialistes qui pensent que incontournablement le PS devrait avoir un candidat. Ah oui l'histoire du parti le justifie, mais également les, la dimension du parti à, l'heure où je te parle également, mais nous oblige à avoir un candidat. Maintenant, ça n'a rien à voir avec l'alliance, parce que si aujourd'hui, euh, en 2012, la coalition Benno Bokk Yaakaar euh, dañu waxoon ni condition bi pour nga bokk ci mooy bu ñu jëmee ci élection yee di ñëw doo ngeen am candidat le PS ne serait jamais membre euh, de Benno Bokk Yaakaar parce que ce qui se passe dans d'autres partis mais Ousmane Tanor Dieng qui est mon leader que je j'ai un grand dévouement et une grande loyauté vis-à-vis de sa, euh, pour sa personne, n'oserait jamais regarder les socialistes en face pour nous dire, pour faire la même chose, dire que non, non, non, le PS e rend ses ambitions, n'aura pas de candidat, il ne peut pas le décréter. Nous, nous avons un parti démocratique. Le moment venu, y a des procédures internes. On va donner la parole à la base, le comité central va se prononcer. Et bu comité central bi joxe avis ba pare le bureau politique comme le comité exécutif national ñoom également ñu joxe seen avis mais En tout cas, l'écrasante majorité aujourd'hui, en tout cas, pas, le débat ne se pose même pas en interne. Il n'y a pas de division sur cette question. Qui peut être le candidat Peut-être euh, il peut avoir débat à niveau. Mais si le PS aura un candidat, oui ou non, le PS aura bel et bien un candidat. Ça, c'est clair. Et même ceux qui disent, euh, on a entendu dernièrement nos propres camarades, certains d'entre nous, non, parce qu'à ce niveau également, il faut que nous sachions, euh, le PS, ils font dans la nuance pour gëmloo nit ñi le PS aura un candidat mais le candidat peut ne pas être un socialiste ce débat-là ne s'est jamais posé au sein du PS en tout cas fii mu ñuy waxee li li nga xamante ni c'est le sentiment le mieux partagé parce que c'est Ousmane Tanor Dieng qui a dit lui-même à la sortie d'une réunion du comité central que la vocation d'un parti c'est de conquérir le pouvoir et le cas échéant de le conserver le plus longtemps possible euh, nous, lorsqu'on créait le PS, mais c'était ou de conserver le pouvoir ou bien de conquérir le pouvoir. Et souvent, les gens oublient vite parce que d'aucuns pensent que c'est avec Macky Sall, c'est euh, la paire qui a été le premier parti qui, après trois ans d'existence, a gagné des élections. Alors que non, si on remonte le passé, mais le PS a connu déjà l'opposition. Parce que Binu créé l'ancêtre du PS, Mais c'est le SFIO de la, de, de, qui, qui, était au pouvoir. Senghor a eu une scission avec la Mingue, a créé l'ancêtre euh, du, du, du, PS. En 1959, trois ans après, en 1949, trois ans après, en 1951, il a gagné les premières élections. Largement, et consorts. Trois après trois ans d'existence. a le PS au pouvoir. Après 40 ans, on est retourné dans l'opposition Donc nous, nous avons connu l'opposition, peut-être ce n'est pas la génération la mais on a connu l'opposition, on a connu le pouvoir. Et te fii ñu toll tey le PS bu demee bay am candidat candidat PS lay doon bu dee dans le cadre d'une coalition maintenant ñun mën nañu proposer suñu candidat en respectant les règles du jeu mais fii ñu waxee bu ñu fi taxawee à l'instant le PS aura un candidat et le candidat en ñun li ñu gënal mooy mu nekk un PS c'est le sentiment le mieux partagé à la mooy sentiment bi nga xam ni base bi moom la ñu gën a partagé en tout cas. mais yi. Mm. Euh, gis nañ ni local yi point noir la ci Benno Bokk Yaakaar. absolument par exemple fii ci nord. Mm. yéen a ngi demoon ànd ak Mamadou Dieng. absolument parce que ñeneen demoon seen côté est-ce que ñu expliquer lan moo waraloon loolu. waaw en réalité li li waraloon loolu mooy ñàkk nangu dogal ak ñàkk kilifteef parce que en réalité bu ñu waxee dëgg benno bi à ba ñuy APR ba muy dajale ay kilifaam ay kàngamam ndakaaru ci kanamu Macky Sall Mamadou Dieng fekkewu ko man Pape Amadou Sall fekkewu ma ko kenn raxu leen fa la ñu waxtaanee seen waxtaan ba ñex xool nu ñuy gérer Thiès ca waxtaan wa ca la ñu joxañee Mamadou Dieng ñoom responsable APR ya fa daje wax ni kët Thiès ku fa bëgg dara da nga wax ak du Dieng au noor également Mamadou Dieng moo fa teg tànk mais ba ñu waxee loolu Macky Sall man fekkuma ko ñoom ñoo ñëw rapporté ñu ko jaxatee la président du groupe li euh, P kii Benno à l' bi muy ñëw di rendre compte fekk naa jotaay ba dans un restaurant de la place ñoom it ña ko fekke ngi ay kàngam ci APR fekke jotaay ba li nañ ñu ko wax ñoom ñoo joxañ Mamadou Dieng ñu dem ci ànd ci loolu bien que ne am na ay péripéties mais ci yoo xamante ne jaru ko woon ay affaire coordonnateur comité électoral ça c'est des postes ad hoc maanaam poste la yoo xamante ne da koy créer bu jeexee jeex na donc jaru woon xëccoo bay xotti liir bi ci digg bi donc en réalité joxoñ nañu Mamadou Dieng mais def ci am ñoo xamante ni seen amuñu humilité nangu woon leadership boobu ci camp APR parce que nag en réalité c'est des gens qui manquent de générosité bu ñu nangoo rek dañoo amul pexe c'est ça le malheur de de Bokk Yaakaar. voilà man donc euh, manque de générosité boobu leen caractériser moo indi en réalité ñu torpiller le projet la et man ak Seynabou bu qui est une cousine à moi ñun la ñu waxoon ñu dem préfecture pour déposer au nom de Benno Bokk Yaakaar pour déposer les donc bi ñu demee déclaration de de, de candidature bi bi ñu demee ñoom ci këyit yi d'abord ils ont tout ba en réalité bi ñu demee finalement on a compris ñii en réalité seen dessein moo doon ñu torpiller loolu bi ñu ko comprendre le même jour à 19 heures man maa dem ci préfet ànd ak Sadikh Sall déposé pour le compte déclaration de candidature booloo defar Thiès bi nga xamante ni ñu ngi ko créé ci même jour bi nga xam ne moo doon deadline bi pour clôturer le même jour lañ ko créé jël récépissé euh, deux partis politiques trois boole ko ci dem pour déposer. mais sinon ñun ñoo doon forclos c'est ce qu'on a fait donc en réalité c'est eux ñoom ñoo torpillé le projet la jàppoon ni ñoom ñoo majoritaire mais bi ñu demee élection yi bëpp ndi wuuree xam nañ ko war mbaam ak ko war giléem la vérité mooy malgré seen camp bi ténor ya fa nekk yëpp ñu leen di lim coalition bi Mamadou Dieng ànd ak ñun ñoo leen a à plate couture derrière Idrissa Seck mais le seul gâchis mooy ils ont dénoré ça en Macky Sall parce que bi mu leen recevoir gouvernance nee na leen bu ngeen àndee ma am yaakaar mais ngeen tasaaroo mun leen a gañ Idrissa Seck moo moo mais bi ñu boolee ñun li ñu am en étant deuxième derrière Idrissa Seck booloo defar Thiès boole ko ak ñoom li ñu am Benno Bokk Yaakaar dañu gagné Idrissa Seck au moins pour le nord euh, le problème était réglé et ñun euh, ba ñuy tànn Mamadou Dieng tànn ñu ko rek externe wu dañ ko teg ci critères yu objectif man parti socialiste laa nekk te dara mënu ma faa jëlee dara mënu ma jëlee bu jàpp naa ni bu fa benn doon des man lay doon. mais te ñàkk ñu fayda parce que 2009 déjà j'étais euh, j'étais tête de liste de Benno euh, de de Benno Siggil Sénégal bu ma ravaler samay ay ambition en 2012 alors que ni waroon naa mën a conforter dynamique boobu c'est parce que je voyais en Mamadou Dieng à cent personnes ci loo xam ni parce que dama ànd ak moom ci campagne fi ñu ànd yëpp ak fu ñu mun a dem le discours bi moom la dañ ko naan loo am sa jëf ko may mais kooku donc yàgg na jëf avant muy soxla euh, dara ci ci ci ci ci ci Cees waay te loolu également résultat yi wane na ko. parce que résultat bi ñu am en étant juste en ayant juste une liste au nord bi ñu ko comparé avec les élections présidentielles sur les quatorze candidats huit ñoo leen raw te noonu rek la dem candidature mais donc nga gis ni pour une première ce fut un coup de maître et au moins loolu te man bi mu jàllee ci laa ko gën a naw parce que ñu bari ñu doon wut bi ñu jàllee amuñu toog lañu mais tey la gën a occupé terrain parce que dara umpewu fii yéen ay journalistes ngeen yéen bi tout comme nous. il est constant dans l'effort te li mu doon def it sacerdoce la ci moom politique taxul mu di ko def le social la tey jii la ko gën a def ci li ñu loo xam ni lu ñu mën a séede la donc ku mel noonu tey bi ñu xamee ni président joxañ na ko te mu jóge ci seen euh, proposition ñoom la waroon rek bu ñu amoon kilifteef am humilité nangu dogal mooy wéyal ko matérialiser ko kon aujourd'hui on n'en serait pas là c'est ça. waaw xanaa gërëm la sant la bu baax euh, euh, ci euh, ini dalal bi nga ma dalal mais également di wax ni ñun Cees rek la ñu am Cees Sénégal la ñu am Sénégal li muy yaatu yaatu Cees moo ñu gënal donc bu ñu sañoon tey lu fi baax Cees la ñëw mais acteurs politiques yi souvent dañu fri la fri la bi mooy surtout dans le cadre de notre mouvance présidentielle la benn Bokk Yaakaar da gis ni souvent c'est des surtout nos gens de la paire ils ne nous facilitent pas la que tout simplement da ngay gis ni ñuy nga xamante ni non c'est des gens yoo xam ne souvent duñu agir dañuy réagir il suffit que Pape Amadou Sall génn wax mais bu ñëpp bokkee lu ñu wax mais ay la yëwén mais amatul njariñ ñuy daje mais ñoom dañu jàpp ni la euh, la pensée unique là mais ça c'est révolu bu ñu àndee ak ñoom du tere ñun ci dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu bokk ñu am suñu identité am suñu personnalité eu égard à notre parcours donc il faut ñu nangu loolu bu ñu bëggee ànd ak nit ñi je donne juste une illustration bu mujj bi nga xamante ni moo am ci sortie bi Mamadou mi nu mu def on a vu les réactions yi mu suscité mais c'était des réactions inutiles et inappropriées et surtout j'en profite pour euh, si je peux me permettre pour donner un conseil à mon jeune frère et ami Abdou Mbow être porte-parole ne veut pas dire être caisse de résonance yaa fi yaa euh, war a wax bu mu la tax a wax loo xamul et quand Mamadou Lamine Loum s'il n'est pas lui habilité à parler économie ou bien à donner son avis dans euh, ci doxalinu réew mi fii mu toll gisuma kan moo am habilité boobu vu fi mu jaar yëpp mais c'est un homme qui est suffisamment outillé pour parler économie c'est un homme qui est suffisamment outillé pour parler euh, finance pour parler des, des, des, des agrégats euh, en matière économique, etc., etc. Mais c'est son dada, toute sa vie durant. Mais est-ce que quel, ce monsieur-là, quand il donne un avis, moi je pense que quelqu'un comme Amadouba, c'est son vis-à-vis -vis pour apporter les réponses appropriées qu'il faut, surtout que Mamadou Lamounoum est dans la mouvance présidentielle. Mais un Abdouma, je suis désolé, n'a ni les compétences, ni le profil, ni le vécu, ni les, les outils nécessaires pour apporter la réplique. Sur le, quand on parle politique, c'est un cadre politique, je l'admets. Il peut polémiquer, il peut parler, il peut piailler autant qu'il veut. Mais quand même, quand on parle économie, il doit avoir euh, plus d'humilité en évitant de, de, de, de jeter l'anathème ou l'opprobre sur des d'éminentes personnalités qu'il qualifie de personnages du passé, alors que ces personnages du passé-là, euh, ils les ont confiés des responsabilités actuelles, présentes. Maud Lamouloum a des responsabilités à l'heure où je te parle. Qui euh, comment confier des responsabilités à un personnage du passé Donc je suis désolé, il faut quand même, je profite de cette occasion pour qu'il sache raison garder et qu'il ait plus d'humilité dans ses, dans ses sorties et en étant moins, moins, moins, moins, moins hostile et arrogant. Ils sont trop réfractaires et c'est malheureux, c'est dommage. Vraiment, di ñaanal ñëpp jàmm euh, di leen gërëm di leen sant.